yaa ngi ci xolu Sénégalais yi ba noppi Macky du moo la ciy génne keneen du la ci génne gëmal li nga gëm rek Sénégalais yi bëgguñu ñuy néewal doole kenn te man waa D-Média ama yaakaar pétrole beeg gaz bi ngeen di xëy di tudd ak troisième mandat bi boobu la ñu bañ ngeen tudd ko moo tax ñuy tëj seen télé bi mais télé bi ku ko tëj di nga tëjaale Sénégalais yëpp ndax seen TV dafa dugg ci xolu Sénégalais yi. seen TV ñi nga leen bëggee yéen Euh, tele askan bi waaw ñun ngeen fi nekkal yéen leen fi nekkal mais gumba ku ko saraxatul da nga koy bàyyi ak yalwaanam na leen bàyyi ngeen liggéey seen liggéey yéen defu leen dara yéen ay gaynde ngeen ay liggéeykat lu lu fee lu xool lu nëbb nekk yéen a koy feeñal loolu kese la loolu rek loolu xeex ci yéen lii nëbb ngeen di feeñal loolu la lay bañ lay def nekk leen ci dëgg rek yéen di am benn message bi ñu jàll rek pour bëgg mu yëg ba ci kaw ba état jot ko muy ñin ñi nga xam ne dañoo nekk noa choc yi am loo xamante ni ñu ngi fiy dund fan yi mu jaaxal ni trop muy ramage boo xamante ni ñoom teguñu ko fenn depuis couvre-feu jàll ba nag ndax vingt une bu la fekkee ci biti yow Sénégal bi buñ la buñ daje ak yow ñoom policiers yi dañ lay laaj sa carte d'identité nga jox leen ko ñoom atu pour la ci te buñ la téyee dañuy avancé yow tuuti wala wala fi ñu la jàppee sax boo duggee ci biir sax ci lañ lay imposer benn mbir joxel xaalis pour ñu bàyyi la ci loo xam ne ñoom teguñu ko fenn léegi nag ñi bëgg état maam lu noonu pour moom mu yëg ko mu dal see wax ndax fin na mi ngi nelaw te ñoom ñu ngi koy yee man nag wax dëgg yàlla lu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum doon wax man foofu laay tàmbali man moom wax dëgg yàlla damaa tiit damaa tiit dëkk bu amul justice moom xaw ma nan lañ fay dëkkee mooy loolu lii ñuy dund nii nag Macky Sall ak régime am groupe des médias bi nga xam ne tey ñëpp amatuñ fu ñu refusé sénégalais amuñu fu ñu mën a làqatu lu dul ci seen boobu nga xam ne moom lañ dese mu bëgg ko ñëwee da koy tëj loolu képp kuy sénégalais ak foo mënti nekk ci àdduna war nga mën a manifester sa mécontentement ci loolu wala xam ne nag bis bu groupe des médias tëjee moom bu yeboo sénégalais na ñëpp toog seen kër xam ne moom dañuy lonk nañ parce que moo fi des li ñuy def nag mooy lu njëkk mooy di ñaax di dooleel Bougane Gueye Dany di ko wax ni nag moom ñaancoo la mais problème bi du problème problème bi problème sénégalais la peuple sénégalais bi benn inondation bu jotee Sen TV la ñuy gis dundu cher bi ñoom la ñuy gis ñooy taxaw di ñu kaasal lépp li nga xam ni ñàkk jàng xale yi lépp li nga xam ne tey sénégalais yi dañ koy dund ci metti ci coono am problème bopp yaa ngi dem tës ku am problème xam-xam yaa ngi xaar Iran Ndaw ku bëgg a dégg ñu lay tagal yonent bi yaa ngi xaar Mouhamed Mbaye ak yeneen ak yeneen ci ay émission yoo xam day jariñ nit ñi si côté xam-xam grand kër boobu ñaata nit lañ dimbali ñaata nit ak ñaata personne ñooy teddee ci bërëb boobu nga xam ne tey ay njaboot lañu gàddu maire yi jaay ndékki ci bunt bi si bunt des médias boobu taximaan yi indi ña fay liggéey ñeneen ak ñeneen maanaam entreprise boobu ñaata personne lay jariñ ñi xam ne tey Macky Sall mi ngi xoqatal loolu mu bëgg a am mu bëgg a def bis bu jàllee ñaata nit ñoo ciy lor est-ce que loolu mesuré na ko moom Macky Sall. ñu ngi nuyu Sénégal yëpp à parabole di wax ne li fi xew ci wàllu local yi ñëpp gis nañ ko le président Macky Sall nag ñun dañu àndoon ak moom ci ngor jàppale ko en 2012 ba mu nekk président de la république ñu ne déeta waaye ñu jàppalewaat ko en 2019 wër l'étendue du territoire ba mu nekk le président de la république tey nag bu ñuy dem ci élection gox-goxaan élection locale ñëpp xam ni mu demee ne population bi ñooy tànnal seen bopp kon yaakaar naa ne je défie quiconque ku président tànn pour mu ñëw naan day jiite Médina et ñëpp xam nañ ne waa Médina choisir nañ ba pare ki ñu choisir mooy Cheikh Ahmed Tidiane Ba pour les élections en 2022 kon mooy Cheikh Ahmed Tidiane Ba et li ma bëgg wax sax laaj ko le président de la république mooy anam ne moom la ñuy coow ci réew mi boobaak léegi yaakaar naa soulèvement populaire bi fi amoon muy wax ne yëg naa seen ñaxtu dégg naa seen jooy xale yi ba léegi ñoo ngi jooy yaakaar naa il faut nag ñu taxaw jeunesse bi te bu ñu bëggee taxaw jeunesse bi il faut ñu bàyyi jeunesse bi di tànnal seen bopp. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax. dafa mel ne dañu ne entre Bougane la ak Macky Sall. déedéet entre dunguruy Macky Sall yi la ak les chroniqueurs sonal gi ñu sonal état nag. moo tax dunguruy Macky Sall yi. jóg pour lan pour fay. télé bi ñoom xamuñu ne ñi ngi campagnal bugaan ñoom dañoo war a xam ne ñoom ñi ngi campagnal bugaan te xamuñu ko ñoom ñi ngi campagnal bugaan parce que bugaan ba léegi waxul am na jëf joo xam ne moo lay waxal am na jëf joo xam ne moo lay tontul Macky Sall na na na jéem a gëstu ñi nekk ci ginnaawam nekk ay nit ñoo xamante ne si na dara ñëru leen lu dul lan pour faagaagal doomu aadama dara ñëru leen pour lan pour seen intérêt ba dara ñëru leen pour lan jàpp nañ ne bu Macky Sall wàccee dañuy tëddi kaso Alaaji Mansour euh, kàddu gaa ngi noonu. <laughs> li ñu wax lépp dëgg la amul dara lu ma ciy weddi. mais xeex bi tàng na nañu tempérer situation yi réew mi kenn moom ko. dafa am institution am yoon bu muy jaar bu tàkkee. ñun ñëpp ñooy souffrir mu wax ba ci ñi jiite réew mi bëgguñu mu tàkk ñi jiite aussi amul leen benn intérêt. Mhm. bu di tëj ay groupe de presse. Mhm. nit ñu dëkk nag sama yaay dafay wax ni bu la jàmm tëwee na soriantoo am mhm. koo dëkkalul doo jàppante ak moom am na di am na bras de fer xeex nañu li ñu war xeex ñu ngi dóor ku nekk ngi dóor watawat nag basta mhm. voilà watawat nag vraiment yónnee leen vidéo yoo xam nañu wax ci dundunu askan wi après kilifa yi wax li ñuy wax man jàpp naa sama conscience ni président yëgu ko mhm. te loolu laa gëm jàpp naa ne am nañu mën a sol seen dal def ay médiation loolu laa gëm des médias rek du as du Sénégal Sénégal en miniature la certes mais du Sénégal ñun tey bu fekkee bu ñu ko tëjee mën naa dem liggéey ndey di mew di liggéey Abdoulaye liggéey yow nga liggéey faneen c'est pas la fin du monde mais Sénégalais yi ñoo soxla di am information ci des médias mm-hmm. muy ñun muy gouvernement bi kenn amul intérêt privé sénégalais yi li ñuy am ci des médias mm-hmm. ñaata nit ñoo lay seetaan Facebook YouTube ñaata ñoo lay seetaan RCN ñaata ñoo lay seetaan TNT ñaata ñoo lay seetaan canal ñaata ñoo lay seetaan sa application on a plus le droit di def di def di def guerre boo xamante ni bi dañuy xañ population boobu fu ñuy jooyee seen ay troit mhm. fu ñuy jooyee ceeb bu cher fu ñuy jooyee bu ñu bëggee liggéey fu ñuy jàmbati gouvernement bi dégg seen ay kàddu yu jàmbat mhm. basta na kilifay kër gi ak kilifay réew mi joxante loxo ñu trouver solution jàmm ni ñooy Sénégal jëm ñu bàyyi ñu ak suñu ligne éditoriale ñuy dénoncer askan wi li leen leen metti mais vraiment nag boo bu ñu toppee yëf yi ba ci biir muy gouvernement muy ñun am na wax wi dañu lay jëndloo fosu yaa biir te duñu la ko guble basta. di ak ku bëgg ko wéttali tëjal bunt bi du leen boole état bi ak presque bi dañu war a collaborer. parce que président Macky Sall euh, moom ak ay nitam ñu nekk fépp ba xam jafe-jafe yi nga xam ne ni moom la Sénégalais di dund. Mhm. il faut presque nekk ci wetam di ko fàttali jafe-jafe yi nga xam ne moom la askan wi di dund te mu nekkoon aussi ay dige mu war ko sàmmoonte ak euh, askan wi. donc euh, ci dige yooyu sax laay dem parce que bëri na tey jii pour commander ci élément bu jàlloon sànq di wax ne plus de mille emplois tey jii nii bu ñu seetaanul bu ñu seetaanee dina disparaître ci wàllu napp bi donc mu nekk lu interpellé waat encore l'état du Sénégal ci ay convention yoo xamante ne nii daf ko signé woon ratifié ko te convention yooyu tey jii nii dafay euh, maanaam combattre lu jëm ci wàllu vraiment surpêche bi nga mhm. xam ni tey dafa sonal lool nappkat yi mhm. te yenn zone yi nga xam ne dafa am découverte euh, de ressources naturelles foofu nappkat yi fii ak ay at mënatuñ fa dem mhm. donc encore une fois ñooñu it dafa jot ci léegi-léegi nii ñu xoolal leen lan lañ fa war a def su ko defee bu suñu ressources naturelles yooyu commencé ball ba Sénégal ci jariñoo ñoom aussi les pêcheurs du ñu ñàkk seen liggéey euh, li nga xam ne Mansour wax na ko du ñëwaat lu am solo jamono ji tembe damay jàpp ni waratuñu sax wax si li nga xam ne moo di ay fiscalité ay rapport de force entre groupe de presse ak état du Sénégal jamono ji tembe réflexion globale je dis bien globale dafa war a tourner autour de la rentabilité des entreprises de presse de la rentabilité économique des entreprises de presse naka lañ mën a fexe ba nga